Assalamu alaikum, internet yi TV euh, mu village dans la commune de Ngoy euh, ci département Bambey euh, fekkoon fa ARB donc mu association ressortissant Bambey yi nga xamante ni ñu consulter gratuitement mais aussi tamit jox ay médicaments Euh, donc comme ni ngeen ko gisee noonu ci image yi euh, faju nañ euh, jox nañ leen ay médicament te joxewuñu dara fayuñu dara donc loolu comme ni ngeen ko gisee ci image yi noonu ngeen di gisee aussi tamit réaction bénéficiaires yi nga xamante ni ñoom ñëw nañu fa faju ñu jox leen ay médicament te joxewuñu dara donc mu nekk loo xamante ni am na solo lool xamna ki dina ci addu euh, bénéficiaires mais aussi tamit euh, président bi dina ci addu ak président association bi nga xamanteni mo mu ëmb médecin yi ñewon fofa di consulter nit ñi gratuitement suñu doom yi di dem faju ji kon nag su ngeen jógee ñëw fii lii lu baax la am suñu am suñu wëlëre la daal parce que ñun waa waa kaw lañu daal li ngeen ñu defal lu lu rëy am na kontaan nañ si bu baax a faju naa xale bi moo fajuwul waaw nee na suba lay ñëw déedéet joxaguñ ma garab damaa joxe kayit bi waaw waaw. waaw euh, ñu tey ñu organiser waa association bi organiser journée boobu da nga li ne man li ma ciy wax li de lu baax la parce que war a faju ji dem Bambey ñëw ñu fekk si la faj si la. amatoo ci benn jafe-jafe nga war a dem ngoy demoo ngoy da amatoo ci benn jafe-jafe lii moom xam naa ne lu baax la. sant nañ ci yàlla gërëm nañu leen yal na leen yàlla jàppale am na njariñ lool mom am na njariñ ci suñu doom yi am na njariñ ci ñun waaw ndax ñun amajuñu benn jafe-jafe waaw da ngeen di ñëw fii di ñu fekk si fii di ñu faj waaw du ñu dox du ñu waaw suñu doon dox di ñu wante yéen mom, seen liggéey rafet di ngeen jàpp itam yal leen ci yàlla dimbali ak jam waaw ci li ngeen bokk waaw. gis nga yor ay garab ngi garab waaw man mangi ngi yore samay garab to man defuma ci jenu dërëm jenuma ci samay doom faju nañu man faju naa to man ñàkkuma ah, man man dama yore bot yi doon xes man noppi dañuy xesen léegi bot yi fan yi dañuy xesen waaw léeg sama baat di miti mom moom loolu yëpp wone Legi ko léegi nag ñu ngi may jox samay garab to man fayuma ci dara samay xele ngi nii ñoom ñii dañoo soj ñii seeni yaram tang ñii yore saxat te ñoom ñëpp jox nañu len ay garab to benn dërëm ñàkkuma ko ci waaw loolu moom am naa ci kontaante lool waaw waa Saint-Louis Oui, non, non. fii mooy metti rek. mbagg bi. Hmm? waaw mbagg bi nga ma depuis kañ la loolu. ak bët bi. ak bët bi mbagg bi depuis kañ la. depuis kañ. Eh, yàgg na de. def na ñaata ñaata fan wala ñaata weer. mot na ñetti weer. ñetti weer. waaw dañ cee gaañ. waaw déedéet gaañoo ma de. gaañoo ci. ba xool loxo indi ñaar loxo yi. ko nii. yëkkati ko. dafa loxo yi. day métti. waaw coba deh, tey masa masa masa masa baax na baax na baax na baax na baax voilà lema ok léegi c'est Je suis Gabriel Mendy, je suis médecin et président de l'association Présence médicale Saint-Luc. En effet, euh, c'est une association médicale catholique qui est composée de médecins, pharmaciens, de dentistes, chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, d'infirmiers qui œuvrent dans le social. C'est une association non lucrative qui organise euh, des campagnes de journée euh, de consultation en collaboration avec la plupart des, euh, associations des ressortissants. Comme cette activité, nous avons été contactés par l'association des ressortissants de Bambay. Nous sommes aujourd'hui pour la deuxième édition et l'organisation s'est passée bien, s'est bien passée jusqu'à présent et nous offrons des consultations d'ordre général, des consultations ophtalmologiques -même, que, que je fais moi-même, des consultations pédiatriques et consultation odontologique pour les dentistes et des soins infirmiers. Bon, le but des campagnes, c'est non seulement de faire des dépistages, mais aussi de faire des diagnostics, dans le but de référer à temps, parce que ça, c'est important dans, la santé communautaire. Et il y a même des pathologies qu'on a la possibilité de traiter de façon curative. Donc, c'est des, des activités qu'on fait chaque année non seulement dans les, dans les coins les plus reculés au Sénégal, mais qu'on fait le plus souvent aussi à Dakar. On, le, on, travaille en partenariat de, l'Église catholique, parce que nous dépendons de l'Église catholique. Mais quand même, c'est une association qui est ouverte à toute personne qui respecte les convictions religieuses et aussi les la conviction non lucrative. voilà. jusque-là, c'est une association, une collaboration qui est euh, déjà très équilibrée, qui est très équilibrée, je, disais, je dirais, parce que si ce n'était pas une bonne chose, on n'allait pas organiser la deuxième édition. Donc là, on est dans l'optique de faire ça au moins chaque année, si on a cette possibilité, parce qu'on sera beaucoup plus efficace si on a la possibilité de revoir nos malades chaque année au moins d'essayer de voir si les conseils qu'on a donnés les années précédentes ont pu être respectés. Parce que ça nous est arrivé d'avoir ce genre de, contact avec beaucoup de malades dans d'autres zones. Parce qu'il y a des zones où on y, va parce que ça fait maintenant 5 ou 6 fois. Et euh, il y a certains, on leur donne même des, conseils pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent aller faire le suivi dans les centres de santé qui sont dans les parages. Parce qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, qu'on détecte une pathologie, on fait une note adressée à la zone, au, au district de la zone pour, faire le suivi. Donc, une campagne c'est bien, mais le suivi c'est encore mieux. quelles sont les pathologies rencontrées depuis sa présent Bon, les pathologies déjà d'ordre ophtalmologique, on voit qu'il y a des irritations oculaires assez fréquentes, des térigions, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, bon, c'est lié au climat le plus souvent. Et il y a pas mal d'amétropie qu'on retrouve, des gens qui ont des besoins de lunettes, et des cataractes petits qu'on qu un qu Mais les cataractes, le traitement, c'est chirurgical. Donc on les réfère chez l'ophtalmologiste à Bombay. Et autre chose, bon, moi j'ai eu à diagnostiquer une urgence. Tout à l'heure, bon, on a installé le traitement, mais on a contacté l'association parce qu'il va falloir qu'on appelle le responsable de l'ophtalmologie de Bombay pour gérer ce cas. Et du côté général, des arthralgies, des pathologies d'ordre orthopédique qu'on retrouve, des pathologies d'ordre gynécologique, de et tout ça. Bon, globalement, c'est ça. Et euh, même les pathologies dermatologiques, hein, on en a vu jusque-là. Mais comme on est à, notre première journée, on n'a pas encore fait les statistiques. On fait ça le soir pour cette première journée et éventuellement demain à la fin. Il y aura un rapport qui sera donné à l'association, il y aura un rapport aussi que nous, nous allons garder. Ça va nous permettre d'évaluer un peu ce qui va se passer. C'est c'est où On est à la centrale des œuvres catholiques, euh, c'est au niveau de Dakar à la Papa Gueye Fall comme je disais nous dépendons de l'église catholique voilà. donc ci wolof euh, président nga ci Gabriel Mendy may euh, président wu association présence médicale Saint-Luc moo di association bi nga xam day activé wu ci social ci consultation consultation gratuite ak ay campagne ndaxte jamono jii nii dañoo gis ni euh, nit bu feebaree c'est vrai que war hôpital mais parfois tamit nit di mun nañu mën a jege populations population type fekki leen fu ñu soree pour jéem xam sen sen jàngoro ak sen jambat donc tey jii mooy deuxième fois ba ñu ñëw fii liggéey ak wa association ressortissants Bambey ñun nak suñu association tamit association catholique la mais nak tijji na ñëpp ñi nga xamné ne day respecté suñu religion ak religion ñeneen ñëpp ko ak conviction sociale parce que mbirumu xaalis ak jaayantu ak ak jaay ak yoy lañuy bañ maintenant objectif consultation bi dañuy ñëw xol dépistage dépistage mais manam nga xol feebaru nit ki tel koo gis won ko fi mu wara jëm pour ñu mën koo faj balaa muy gën a aggravé wu donc campagne médicale loolu mooy rôlam faj ñi ñu war a won ñeneen ñi fu ñu war jëm bu ñu toppatoo leen seen problème premier jour bu ñu def defaguñu rapport yi mais amna na ay feebar yu bëri ñu gisagum ci xale yi comme ci mag ñi muy feebaru cataract muy feebaru der ñu wooyee bon ci olof wax doxam ci lañ ko pour mu yomb ci ay euh, feebaru jigéen am nay consultation dentiste am na fi hmm, mooy toppatoo ba ñu ba ñu nit ñi ak euh, mag ñi ak yëpp donc feebaru yàq yaa ngi fii feebaru ñàkk gis-gis lépp am na fi pour le moment mais comme pare guñu tey parce que tey mooy premier jour bu ñu paree dañuy calculer lépp wax ñaata lañ dafa gom tey ak yan ñaata nit la ñu gisagum bu subaa tamit nañ ko defati bu ñu paree dañuy calculer lépp jox ko waa association bi ñu tam ñu denc suñu bos parce que gis nañ ni. loolu lu am solo la parce que nit ñi moom fa ngay faral di di leen jege tamit leen di fa faral di jege léegi lu ñuy ñaan nag mooy chaque fois ñu fi ñëw comme ni mu nekkee deuxième édition ñu am ci troisième quatrième ba cinquième parce que jot nañ ci liggéey ak yeneen association mais tout dépend parce que moyens yi yombul hmm? parce que gars dañoo mujj jàpp ci lu bari xeex ci lu bari pour ñu mën koo pour ñu mën koo def donc on est content ñun kontaan nañ trop ci ci ci ci liggéey mi ñu ngi ñaan ñu mën koo def ay ati seen yi collaboration ak instant yi moom kontaan nañ ci torop kontaan nañ ci torop torop torop torop jusqu'à présent coordination yi mën ñu ngi ñu ngi ñu méngoo ci lu baax ci euh, liggéey mi déggoo nañ déggoo nañ ci lu bari que ce soit ci garab yi que ce soit ci coordination yi ak lépp donc instant yi nii moom c'est pas du du du du association bi nga xam ne ñu doog a xamante ak ñoom bu ñu xamante ñoom ça fait trois ans ou quatre ñu ngi ñaan. suñu liggéey ak suñu collaboration mu gën a yokk parce que li ñuy jëm tamit lu baax la nit bu xasee ba am foo jógee dem ba am doole tuuti sax da ngay xalaat fi nga jógee donc mentalité boobu xel boobu la ñuy yor ñun tamit moom la ñuy àndee donc ku ci ku jóg ci loolu moom ñun ñu ngi ak yow instant yi moom vraiment kontaan nañ trop si liggéey bu ñuy def ñoom. ñu ngi euh, centrale des œuvres loolu Dakar la nekk parce que ñun église catholique la ñuy waa waaw léegi suñu responsable centrale des œuvres la nekk. loolu punya ñuy def association catholique yu yu yu yu agir ci turu église ñoo ñooy doon sa ñooy doon sa chef donc lépp lu ñu munti def tamit ñoom dañ leen di defal rapport bu ñu xam lu ñu jublu mais le fait que ñu nekk église ça veut pas dire que képp catholique kese la ñuy toppatoo parce que loolu important la ñuy wax si hmm? origine association bi déterminé yow fi ngay liggéey parce que jamono ñuy liggéey nii ñu consulter kenn du laaj da catholique nga wala musulman nga nit ki moo moo ñu tax a jóg mais tamit dafa baax ñu wax ñu xam fu ñu jógee loolu rek a hmm. amul ci benn problème ñun suñu bopp sax parce que xam nga sànq maa ngi ne association bi daf ci am ay médecins am ci ay euh, pharmaciens am ay dentistes am na ñenn ñu ngi seen formation spécialisation am na ñenn benn partie ñu ay étudiants lañ mais ñu suñu biir xamante nañ te association ci boppam am na ay musulmans ci nekk. dañ leen ko wonul mais amna na ay musulmans nekk fii ñu ngi fi di consulter ak ñun parce que vous comprenez légui ñu nak ñi nek université ñëpp xamante nañ yeneen association yi ak Touba assistance médicale la ñëpp nañ ay promotionnaires lañ on a euh, grandi ensemble on a étudié ensemble ñoo nek ndoor hôpital donc mbirum religion mo musul nek suñu problème merci beaucoup. Euh, euh, merci beaucoup. Euh, je commencerai d'abord par... Euh Remercier Bambay TV euh, d'être venu, d'avoir répondu à notre appel. Euh, je m'appelle euh, Joachim Sen, je suis le président de l'association des ressources de Bambay, sigle ARB. Et aujourd'hui et demain, nous allons organiser nos journées de consultation médicale. C'est la deuxième édition après celle de 2018. Euh, justement, euh, vous savez, l'ARB, elle est née depuis quelques années. Euh, dans les premières années de son existence, on intervenait surtout dans le domaine du, développement. On a financé un, un certain nombre de projets au profit des populations. On a eu notamment à construire des, moulins à mille, à installer des moulins à mille. on est intervenu aussi au niveau de l'élevage, de, de et aussi, on a eu aussi à installer des, euh, poulaillers au profit des jeunes. Euh, mais depuis deux ou trois ans, on a pensé qu'il était nécessaire d'intervenir aussi dans les autres secteurs, notamment l'éducation et la santé. Et justement, en ce qui concerne la santé, euh, depuis deux ans, nous initions des journées médicales gratuites où nous consultons les populations et nous leur donnons des médicaments gratuitement euh, parce que tout simplement, on a vu que dans cette zone, euh, il y avait un besoin fort en termes de, santé. Euh, nous sommes dans une zone où les gens n'ont pas assez de moyens et nous avons pensé qu'il était opportun de pouvoir faire accéder à ces populations à des soins de, qualité et de leur permettre en tout cas au moins une fois à l'an de pouvoir se faire consulter par un, médecin et de bénéficier de soins gratuits. Bon, disons que euh, nous sommes euh, actuellement, euh, en termes de membres actifs, hein, autour d'une cinquantaine de membres actifs, tous originaires du département de Bombay, essentiellement. Et pour signaler aussi que c'est une association à but non réclatif et qui est ouverte à tous les membres, que ce soit de toute confession religieuse. c'est vrai qu'actuellement, il y a un peu plus de chrétiens, mais c'est une association qui est ouverte à toutes les sensibilités et aussi, c'est une euh, association apolitique. Donc, qui dit consultation gratuite, dit aussi des moyens. Parce que l'association, donc, des euh, moyens, il y a des cotisations, mais il y a des bonnes volontés donc, euh, qui nous appuient. Voilà, justement, au niveau de l'association, notre principale source de, de, de, revenus, hein, c'est les cotisations. Vraiment, c'est un effort qui est fait par les membres pour qu'on puisse mobiliser un certain nombre de, de, de, un, un certain nombre de moyens mais également il y a nos partenaires. Nous sollicitons nos partenaires euh, et c'est le lieu, je crois, de remercier euh, tous ceux qui nous ont aidés, les structures, euh, les personnes physiques qui nous ont aidés à pouvoir financer cette activité-là. Et je voudrais aussi également citer l'équipe médicale qui nous accompagne, Présence médicale Saint-Luc, qui intervient gratuitement. Vraiment, c'est quelque chose que nous devons signaler et à saluer. C'est la deuxième fois qu'ils nous accompagnent et vraiment ils le font de manière bénévole. Donc euh, c'est uniquement peut-être au niveau de la partie médicaments et logistique que nous essayons de trouver les financements, euh, plus les moyens que nous mobilisons au niveau des membres. Et les autorités de cette localité euh, Justement, pour ces journées, présentes journées, on a eu à bénéficier quand même de l'appui notamment du sous-préfet euh, qui nous a appuyés euh, notamment en assurant la sécurité des, de la manifestation. D'ailleurs, il est passé tout à l'heure pour saluer l'équipe médicale et vraiment, euh, nous le remercions du, fond du cœur. malheureusement, nous avions eu aussi à adresser des, demandes de soutien aux autres autorités, notamment du département de la mairie, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas encore reçu d'appui mais nous, nous, comptons toujours sur eux pour pouvoir, euh, d'autant plus que cette journée-là, elle est, elle est, organisée sur deux jours, donc nous ne désespérons pas. Et demain, le programme les consultations et demain Voilà, effectivement, c'est des consultations qui sont organisées sur deux jours. Donc on a pensé que, euh, compte tenu de la population cible, euh, il était bon de pouvoir le faire sur au moins deux jours. C'est ça qui a fait que les consultations elles auront lieu aujourd'hui, et demain, ça va se poursuivre jusqu'à jusqu'en fin d'après-midi. Voilà. Euh, et dans, mes, dans, les soutiens qu'on a eu à recevoir aussi, euh, il faut signaler le, curé de la paroisse de qui nous a vraiment facilité l'organisation en mettant surtout à notre disposition les moyens, euh, notamment les locaux. Vous voyez, nous sommes dans l'école primaire de, de, de la mission et c'est les locaux qui ont été mis à notre disposition gratuitement et avec toute la logistique qui, va avec, euh, l'éclairage, euh, tout ça là. Donc, euh, et aussi, toute la communauté s'est mobilisée aussi. Parce qu'en ce qui concerne la restauration, tout ce qui concerne l'organisation matérielle, on l'a fait sans frais, d'autant plus que c'est les populations de la, de la paroisse qui nous ont aidés à mm, mettre en place l'organisation. donc voilà euh, man suis tudd euh, Joachim Sen, maay président de association bi association des ressortissants de Bambey Euh, D'abord, dama bëggoon leen gërëm yéen euh, Bambey TV qui est teewaay tey ak suba dañuy organiser ay journée médicale gratuite mooy lan mooy que dañu ànd ak une équipe médicale pour toute présence Saint-Luc nous ngi koy gërëm au passage ñoom ñoo ñuy accompagner ci consultation yi ay groupement wu médecins lañu ñëw fii pour consulter gratuitement bon loolu mooy dañ koy def ci ñaari fan tey samedi ak suba dimanche euh, li ma mën a dolli ci loolu mooy que ñoom laajuñu dara dañu ñëw gratuitement euh, pour consulter population yi laajuñu fay kenn du fay dañ lay ñëw euh, consulter gratuitement bu laajee ñu jox la ay médicaments ñu jox la ay médicaments nga mën a faju waaw loolu mooy su loolu daal mooy tax ñu jóg tey ak suba euh, parce que gis nañ né zone bi vraiment ñi fi nek euh, seen moyen demewul noonu voilà. association bi kañ la juddu ak aussi ku nek seen ginnaaw ku leen di jàppale parce que bis bi ko xam aussi xam né ça demande des moyens. kañ la juddu ak aussi membre yi ak euh, kan moo leen di voilà association bi quand même yag na juddu parce que mo ngi fi depuis suñu récépissé quand même ñu ko am depuis 87 1987. waaye da fekk ne bu njëkk al jëlbeen bi pratiquement association bi genre entre aide la woon entre seen membres. Euh, actuellement, nous faisons après une cinquantaine de membres actifs hein, est association euh, mais depuis ay at avons euh, ñu ngi ci développement Nous avons ci juste une aide entre nous mais nous dañuy qui ci affaire u dimbale fi parce que nous sommes pratiquement ñu nekk membre association bi le département Bambey bambé donc nous avons fait war nañu mën a la population yi fi nga vraiment un moyen de euh, jalbeen bi dañ doon euh, def nañ fi ay projets yu bari lu melni moulin à mil lu melni ay poulailler melni embauche embouche bovine depuis ñaari at ñetti at dañuy foog ne euh, aussi war nañ intervenir ci walu wërgu yaram parce que gis nañ né vraiment secteur bo xamné dafa xaw ndol fi ci ci ci département bi ci ci zone bi donc motax ñu xam ñu ñu depuis 2 ans mu ngi ni ñu ngi door organiser ñaareli édition bi pour consultation médica médicale bo xamné ku fi ñëw di nga faju nga fay non seulement médecin qualifié dina la consulter mais bu laajee ñu jox la médicament dinañ la jox médicament bu laajee aussi ñu orienter la beneen structure bo xam mo moo la gën jël en charge loolu aussi médecin médecin yi fi nekk dañ ko mëna def voilà. association bi ay catholique musulman. bon disons que association bi c'est ouvert ñëpp ñëpp la ñu mën a membre que nga nekk catholique euh, musulman ou leneen loo mëna a c'est ouvert à tout le monde mais euh, fait na ne avons na temps yi euh, catholique nous ci gën bëri actuellement catholique ñoo gën bëri mais nous avons ay membres chrétiens et vraiment euh, association bi dañ ko pour ñëpp parce que ci suñu statut c'est une association boo xam apolitique la aussi sans distinction de race ni de religion voilà. Donc, prochaine... voilà euh, ñun dal euh ñuy lu ñu lu def dal mooy que def nañu ñaareelu édition consultation gratuite yaakaar na né bi aussi dañ ko mëna continuer parce que affaire wërgu yaram mom du doy donc yaakaar nañ ne du mobiliser fi ak déwén daal wëgg nañu mobiliser waat pour nos stress defaat ko mën ko diko def at bu jot ñu mëna def euh, consultation médicale gratuite mais nous sommes aussi secteur intervenir nous pouvons continuer continuer intervenir et aussi ci éducation bi waaw secteur moyens et euh, partenaires pour vraiment euh, dëkk contribution santé éducation ci zone bi nga pratiquement voilà euh, pour journée bi euh, a commencé par euh, école bi ñuy accueillir notamment paroisse euh, catholique de Bambey bu Ngaskop euh, vraiment ñu ngi leen remercier curé bi moo ñu abal ay locaux pour nous mën a def journée médicale bi et que logistique bi ci ànd yëpp ñoom ñoo ñu koy pour mu nous a jaar yoon. Euh, tout à l'heure aussi sous-préfet bi jaar na fi visite nous ngi koy aussi parce que yombal nañu affaire organisation bi et puis aussi euh, mettre à notre disposition sécurité agents de sécurité pour nous mën euh, gérer euh, du dugg beeg bi hein. mais il autorités a ah ñu ngi leen di xaar ba léegi ñu ngi leen di xaar manifestation bi ci ñaari fan la yaakaar nañ ne xëy ñu ngi am toujours que xëy na fi ak demee dañu mën a manifester hmm. voilà léegi nag bu ngeen ma ko permettre mooy que vraiment appel laa bëggoon lancer euh, sans que nee naa ñi actif nous avons à peu près une cinquantaine de personnes doyul parce que nous, dañu bëgg mobiliser wu avons ñu un appel nous avons vraiment judo, nous nous juddoo ou bien en tout cas sommes sympathisants au département de Bambay, bëgg Bambey nous ngi vraiment nous avons lañu voilà pour que euh, action ñuy def euh, ci santé bi éducation bi ak un projet yi que gëna law et puis nous am pour ñëpp vraiment ñu ngi lancer un appel vraiment pour que nous euh, bëgg adhérer sans confession en tout cas religieuse ou sans euh, apolitique que ñu mën a adhérer ñu mën a am gën a am doole pour que mënal gën a lawal euh, activité ñu ñuy def